Eh, Ismaïla Faye la moom ay régulateur bi fii gaaru Thiès quatre lignes ñoo fi ligne 4 ligne 5 ligne 8 ak ligne 9 bon fii nag moom wax dëgg yàlla amuñu problème moom ñu ngi liggéey normal quoi wax dëgg yàlla amul amul benn problème fii ñu ngi liggéey dans la dans le dans le jàmm quoi waaw. waaw loolu aussi moom amuñu amuñu si problème ak ñu ñu ngi ko jot à temps moom vraiment lépp am lépp dañ ko organiser banque moo ñuy fay amuñu benn problème wax dëgg yàlla état bi non man à notre niveau ñun amuñu problème ak état bi non non ñoo ngi liggéey normal c'est bien organisé vraiment amuñu benn problème. bon tataay moom bu fekkee wàllu surnombre bi loolu même dakaar nga xam ne capitale bi gis nañ ko fa. xam nga et puis surnombre boobu yenn heure yi rek la heure de heure xëy bi ak heure wàcc bi mais bu nee yenn heure heure creuse yi comme diggante yi presque oto oto yi dañuy yëpp normal quoi. xam nga tataay moom souvent dañuy dañuy dañuy affiché ni place assise du temps la place debout du temps la mais xam nga comme Sénégal lañ nekk bon ñu bëgg dem aussi dañ mais dans dans les meilleures conditions en tout cas travail fi ñëwee ba léegi moom man man à niveau ak population yi après dañu ko apprécier moom. bon xam nga loolu peut être mënu mënuñu wax ni accordé nañ ko quoi mais en tout cas on fait avec quoi waaw. et puis bon population waxuñu ci dara waxuñu ñu mosuñu dégg ku ci ŋaañ dara ñu ñaa ngi ñi ñaa ngi dem normal di ñëw normal donc ñun amuñu xam nga transport service continu la amuñu heure maanaam jour yëpp la ñuy liggéey même férié dañ koy liggéey. quant à heure xëy heure wàcc mom dañuy xey 8 h di wàcc 18 h bu fekkee ni ci walu chauffeur yi la ñom dañuy xey dañuy xey 6 h du matin ba 21 h c'est ça. man Khady la tuddu receveuse la waaw. des fois client indi indil ñu problème parce que dañuy bëgg fu ñu ñom fu leen neex lañu bëgg di wàcc da comme ñon ñun fu leen neex lañu jëlé ñom dañuy bëgg fu leen neex lañu leen di wàccee parce que ay arrêt yi dañuy jigéeyantoo jigéeyantoo yo xamanteni yow doko man mën di kii ñu indi ci problème yi dul jeex. waaw parce que arrêt yi yenn yi dañoo soriantoo am na foo xamante ne amul arrêt parce que ñun client bu ñu romb dañ laa war a jël ñoom duñ taxaw si arrêt yi bu fekkoon ñoom dañuy taxaw si arrêt yi ñu am droit di leen wàcce si arrêt yi parce que moo tax boobu problème ñu am waaw man moom sans salaire amuma ci problème moom parce que sama xaalis bu ma ko bëggee dama si jot sama salaire moom bu ma ko soxlaa dama si jot avant fin du mois sax man naa ko jot waaw man mom amu problème bobu non ñun mom suñu ki mo amu problème amu ben problème moom <laughs> wax dëgg yàlla <laughs> bu dee ligne neuf bi ñun 6 jours ngay liggéey tok 4 jours six jours 4 jours ngay do repo 4 jours ngay euh Ousseynou Fall la nag. waaw client yi problème moy problème arrêt comme ça client Dakar yi ni ñu respecté arrêt ak yu Thiès bokul ndax ñom Euh, dañuy gis koo xam si da lay demandé nga dem si arrêt bi muy xuloo ak yow di coow di histoire ak yow lu ne lay parfois dañuy saaga sax loolu ne lañuy yàq da ngay gis koo xam si day yéeg si section bi war a wàcc si section ba lépp àggee sa section ba day bañ du nangoo wàcc waa même boo respecté arrêt bi du ñëpp ñoo koy respecté mais yow boo ko si respecté yow kese dañu si des respecté wuñ ko wala arrêt yi fi ñu ko war a samp yëpp samp ñu ko fa ndax doyul yenn doy yeeg yooyu yëpp problème la Euh, moo tax clients yi pare parfois dañuy kaas am na ñoo xam li tax ñuy kaas nag mooy li nga leen di jëlee foo xam si du arrêt ba pare bëgg leen wàccee si arrêt loolu moo tax ñuy kaas mais am na ñoo xam si moom euh, duñ nu ngoo taxaw si arrêt moom dañuy bañ da ngay wax ba sonn mais lu ne lay yàq buñ dee wàcc mais da muñ rek xam ne yaay liggéey loolu rek la xam naa nag client Thiès moom dañoo am leneen xam nga nit ki noonu bu amee leneen moom day gaaw a gis boppam waaye oto bi 66 euh, bi mu war a yéeg wala numéro bi mu war a yéeg su ko fa bàyyee balaa mi amaat beneen oto mu yàgg baa du man a am beneen oto tant que ni euh, kii boobu ñëwul euh, kun dina mën a respecté arrêt yi mais ñii dañoo am leneen moo tax respecté wuñu arrêt yi waaw ñoo ngi si jot moom ñoo ngi si jot wax dëgg yàlla xanaa pour ñu yokk ak yooyu rek moom la gars yi bëgg moom bëgg nañ ko trop pour ñu koy yokk receveur ak chauffeur yëpp ndax ñoom ñoo si gën a sonn moom bëgg nañ ñu yokk mais booba léegi xam naa mënagul nekk quoi. dina am du ñu am problème waaye du ñëpp. ndax man wax dëgg yàlla moom sama liggéey dama koy respecté saa yu ma xëyee maa ngi si ndax lépp lu ñuy jotale rek lu ne amaana man duma la ko def ko saa su ne maa ngi respecté sama liggéey di si nekk def sama kem kàttan moo tax problème mu kii opérateur ak chauffeur moom man wax dëgg yàlla xamaguma si lu bëri ndax man amaguma ak ñoom problème ndax man maa ngi respecté sama liggéey heure bi ma war a xëy laay xëy heure bi ma war a wàcc laay wàcc li ñu seq yomb na quoi soo ko respecté rek pour ngeen nekk si jàmm yéen ñaar ñëpp day yomb ndax yow wàcc respecté euh, sa liggéey loolu moo la war soo ko defee rek li si des do am problème ah di wax dëgg yàlla respecté naa sama liggéey maa ngi ciy def sama kim kàttan ndax man lii dama see yàgg ay at maa ngi ko si nekk di si liggéey waaw wax dëgg yàlla ñi ko séqalit ñoom it ñoo ngi def li leen war li xam si diggé woon nañ ko ñu war ma koo jox moom sax weer moom ñoo ma koy jox parfois sax nga jot si fekk weer bi deewul bu la neex waaw moom dinañu xëy première car bi moom sept heures mooy cinq lay départ mais wàcc moom yenn saa yi nga teel yenn saa yi nga dem ba ay vingt une heure ba neuf heures yenn saa nga dem ba huit heures yenn saa huit heures et demi sax wala sept heures et demi nga wàcc. sans dépend si position bi nga taxawee. waaw man moom am na am na jour de repos moom am na am na ñu ko am ñu ko respecté normal mais am na ñu ko respecté wul mais man moom wax dëgg yàlla am na jour de repos yoo xam si su ma liggéey sama six jours dinaa noppal trois jours weer wi vingt jours laa